salaamaaleykum mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ñu am mbégte dalal fii kii di Babacar Méthior Ndiaye nekk juriste euh, mu nekk benn intellectuel boo xam ne euh, les questions constitutionnelles lui intéresse euh, def na ci ay gëstu yu bëree bari ba tey jii jàpp nañ ne war na cee mën a waxtaan ak ñun ñu nekk ci période boo xam ne Sénégal bëri na coow surtout. Euh, ci li nga xam ne dafa dem ci mbirum troisième candidature kii di président Macky Sall ñu ne di ko wax sax mbirum troisième candidat euh, troisième mandat euh, Babacar ñu ngi lay nuyu monsieur Ndiaye. di la jaajëfal maa ngi lay fay Cheikh Tidiane. Kande Kande maa ngi lay fay di la di la nuyu di la gërëm di nuyu sina mbokku téléspectateurs yi ñuy déglu waaye maa ngi leen di balaa may wax leen maa ngi leen di jaal si néew yi. Euh, ratoon ci bateau Joola. Mhm. Ah, booba léegi yàgg na. vingt ans après. waaw vingt ans après vraiment ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi euh, ñoo ngi leen daal ñoo ngi ñoo on se lie à mémoire. Mhm. ñoo ngi leen di lii. Mhm. vraiment di leen di leen fàttaliku bu baax di ko méttitlu. waaw dégg nañ sax ñoo xam ne nee nañu war nañuy suqali. bateau bi bateau bi waaye loolu def naa ni loolu <laughs> doy waar la ndaxte ay néew yu yàgg. nga xam ne daanaka tey foofu seen bàmmeel la hmm. nga jële leen fa ci biir géej ga ah di nga di nga di nga seen taw feex du leen neex hmm. ba pare aussi choléra ak épidémie yeneen peste yi hmm. loolu yëpp mën na am ay néew yu yàgg nga sulli leen ah, loolu mën na jur ay jéye ak ay ay ay ay ay ay épidémie yu bare ay mbas ci réew mi donc war nañ ci def ndànk waaye ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ñoo ngi ci ñoo ngi lii de vraiment ñoo ngi masu réew mi ci dëj boobu ñëpp bokk réew yëpp bokk. Hmm. di leen tamit di leen jaal kilifa gu mag gi fi bàyyi ko yàggul di sina euh, sina euh, sina euh, sina sina Baye Elhadji Moustapha Guèye donc président de l' association des imams. des hmm. et des oulémas. waaw hmm. ah, doon kilifa gu mag gu ràññ gu ràññeeku di koo xam ni émission tontu bataaxal bi mu daan def. moo ko sama baay bi ma tuddee kër ah, Métiour Ndiaye bi doon chef des émissions religieuses à la RTS kooku moo ko créé woon te ñoom ñaar ñoo ko doon def ci ci jalbeen ga hmm. boobu Babacar Métiour Ndiaye mu mag moo doon posé question yi qui était le chef des émissions religieuses Moustapha tontu donc hmm. El bàyyi la ci man hmm. te wëlëre sama turandoo kon di jaale di ko jaale waa réew mi yëpp di ko métti di jaale tamit ci biir yoon bi seen mbokk journaliste bu naan Soro Soro Diop def naa ni euh, mhm. mbokk la ci doyen Soro waaw ko jàll tamit mhm. d'accord am na solo monsieur Ndiaye euh, euh, nga bokk ci ñi nga xam ne ñoom la état bi dënk pour ñu bind bindaat histoire générale du Sénégal mu nekk une activité quand même très très importante dans la marche de notre nation qu'un pays puisse de réécrire intégralement son histoire où est-ce ci liggéey boobu. waaw euh, Cheikh Tidiane Kandé ñun ñoo ngi liggéey bee ngi avancé euh, njëkkoon nañu remettre président de la République cinq volumes. Mhm. ah boobu boobu góor gi euh, procès Iba Der Thiam mi ngi doon dund boobu moom moo moom mooy doon coordonnateur général bi moo remettre donc cinq volumes yi personnellement au président de la République officiellement. au palais de la prison de la République. Hmm. waaw ñoo ngi boobu on était on s'est invité euh, à la salle des banquets. Hmm. dañ koy def euh, deuxième bi nag on vient de clôturer quinze volumes. quinze volumes quinze volumes waaw léegi daan ko joxe officiellement d'ici la fin de l'année. Hmm. mais en attendant am na ay jot nañu ni première am na ñu ko jot a jotagum jot waaye le grand public daal je crois que fii lekk euh, novembre peut-être avant la fin de l'année la ñuy jot donc les quinze volumes. donc série bi deuxième série bi de d'édition mhm. sur l'histoire générale du Sénégal dañuy continuer nag ay at wax mhm. nañu en principe on avait prévu ça sur cinq ans mhm. ñu njëkkoon prévoir sax mooy chaque année cinq volumes waaye biyoon macha allah quinze volumes génn na avec l'absence du professeur Iba Der Thiam waaw waaw xam nga professeur Iba Der Thiam euh, coordonnateur la rek dafa sànni idée bi rek waaye waaye projet bi am na lu ëpp cinq cent chercheurs professeurs yu mag ñoom ñoom état da leen di fay wala c'est des contributions. waaw contribution yi euh, soo defee sa contribution. Hmm. dana kenn du la fay euh, euh, mensuellement. Hmm. mais soo defee sa contribution la xool. sa contribution nu ma toll. Hmm. ndax volume la wala article la. nu ma day daal ci loolu lay rémunérer ak sa dayo yow. ndax ban grade nga am yooyu la seet pour pour rémunérer la. donc en fonction de l'importance du travail. est-ce que xaalis bi disponible na l'État a mis tout l'argent nécessaire. waaw waaw question yooyu nag su ma ma sañoon. Euh, du mu ci mën a tontu parce que ku sama xarit Mamadou Fall. qui est le mm. coordonnateur général actuellement. yooyu su ma sañoon moo ci mën a tontu. Mm. waaw ndaxte le professeur Fall waaw professeur Mamadou Fall. c'est mm. actuellement le coordonnateur général qui a remplacé donc Iba Der Thiam. def naa ni laaj mel noonu moom la ko war a laaj. maintenant dans le cadre de l'écriture de cette histoire les difficultés que vous rencontrez depuis le début de ce projet waaw difficulté bi peut-être euh, collaboration les des populations parce que ñun au départ laajoon nañu kilifa diine yi kilifa aada yi les grandes familles ku ñu nekk nga indi sa contribution loo xam ci sa ci sa famille hmm. seen histoire ñu jël ko dajale ko centraliser ko étudier waat ko analyser ko ah donc bokk ci li boole ko ci li ñu yor au niveau hmm. des archives ñu def ko waaye ba leen ko waxee ñoom daan nañu ñëw au début dans les réunions mais defuñu ko ce qui fait que les premières publications ñu doon def. Hmm, ay des manquements. Hmm. parce que am na élément yoo xam ni dafa dafa doon contredire dafa doon woroog euh, li këru diine yi xam ci seen maam ak seen cosaan yi euh, tarixa wala leneen. indi na donc yéen lenn tuuti benke ñenke diggante euh, waa ñooñu kilifa yooyu ak commission bi ba tax na. Euh, am na yu ñu rectifié parce que ñu ngi ko déggoon xëy na xamuñu bu baax ñooñu bindoon loolu. Mm-hmm. xëy na dans la précipitation dafa am ñoo xam ni amuñoon élément yi ñoom lu ñu xam rek lu ñu mokkaloon lañu la ñu basé wu. Mm-hmm. donc éléments yooyu nag yi manqué woon te ñu waroon ko jox mm-hmm. depuis lors. j'espère que éléments yi manqué woon c'est pas des éléments de complaisance xam nga ne kenn du nangoo waxal maamam lu rafetul. non pour la muy mel noonu quand amoon na tamit. non complaisance buy am euh, ça viendrait day day bàyyi ci këru. këru ñooñu nga xam ni ñoo fa ñoo fa bokk. Hmm. waaye du du du doon ci commission commission bi ñoom. c'est une commission scientifique voilà. voilà qui respecte le principe de la neutralité éthique. Hmm. hein, et donc de l'objectivité et cetera. Hmm. Ah, donc c'est une rédaction bi c'est impersonnel c'est c'est donc euh, les principes axiologiques daal. scientifique dañ koy respecter amul kenn ku ci. wane sa bopp wala ku ci réel kenn dañuy wax rek dëgg ji nu mu tëddee. d'accord livre yi fan lañ koy tiré fan lañ koy imprimer. Sénégal la wala bitim réew. waaw livre yi am na <laughs> peut-être euh, am na am na une édition bu ñu def en collaboration avec une maison d'édition en France def naa ni Mamadou Fall wax wax na ma loolu que euh, mi ngi ci doon dox. defe naa ni euh, ñoom ñoo ko doon fii fii volume bi actuellement. Mm-hmm. ba ñu njëkk ñoom maison d'édition bu nekk France moo ko def. Mm-hmm. amoon na sax au début quelques erreurs. on a corrigé. Mhm. delloo leen ko ñu defaraat ko. Mhm. donc euh, je crois que à ce niveau euh, Mamadou Fall daal. man na ci wax professeur Mamadou Fall daal moo ci gën a mën a wax lu lu leer. d' accord ñun ñu profité aussi rek pour waxaal professeur Mamadou Fall que Sénégal am na ay maison d' édition quand même capable d' imprimer des loolu sax mooy gën fekkee ni am na <laughs> li concurrence. Euh, mhm. en termes de qualité. ah oui ci réew mi ñoo xam ni mën nañu. tey professeur war na xam ne quand les maisons d' édition sénégalaises n'ont rien euh, aux maisons d'édition françaises ah en termes de qualité en termes de de rigueur. waaw boobu nag loolu seen faute la yéen a war a jóg <laughs> wane la ngeen mëne. waaw eh déposer seen candidature ñu confronter ak yeneen maisons yi. suñu gisee nii yéen mais est-ce que vous avez fait un appel d'offres a pas eu quelque part. loolu nag xaw ma ci dara. parce que ah. xaw ma démarche bi ak. modalité yi. waaw loolu loolu moom bokkuma ci domaine boobu. man recherche lay def. Mm-hmm. ah di yor loolu laay def donc domaine administratif beeg loolu moom xam naa ne bàyyi naa ko professeur Fall professeur euh, euh, nga daan nit koo xam ne tamit euh, intellectuel nga sa xam-xam dem na ci mbirum droit ci mbirum constitution yàlla def na tey ñu nekk ci réew moo xam ne coow loolu daanaka mooy coow bu gën a jub mooy coow bu gën a intéressé acteurs politiques yi les acteurs de la société civile et nous autres journalistes Euh, muy la question du troisième mandat ou même de la troisième candidature du président Macky Sall Euh, opposition bi ci ñoom seen biir euh, jàpp nañ ne président Macky sa am droit euh, def une autre candidature pour di prétendre am un autre mandat parce que déjà selon la constitution que nul ne peut faire plus de deux mandats consécutifs yow ban lecture nga am ci débat bi nga xam ne nekk na tey débat bi gën a crucial ci langue politique bu Sénégal. jërëjëf Cheikh Yane Kandé laaj nga laj bu am solo bu ubbali réew mi. Mhm. Ah, mooy mooy. problème mu hmm. troisième candidature du président Macky waaye loolu ba ñu koy wax day fekk ni Macky Sall moom ci boppam mu bëgg nekk candidat. waaw hmm. ah, fekkee ne waxu ni candidat la le na ne se pose pas nit ñi day njort rek ni dafa bëgg nekk candidat parce que dafa xëy na ay actes yu mu posé. Hmm. la lañ ko jugé euh, euh, ni dafa bëgg nekk candidat ñoom nag ñu wéeru ci ni. Euh, président de la république jot na def ñaari mandat ci bopp réew mi ba mu falu ko léegi mu njëkk falu en 2012 ba 2019 un premier mandat leer na mandat la woon mhm. am na beneen mandat bu mu tàmbalee en 2019 mooy ra mandat bi dox tey war a jeex fileeg euh, at ak genn wàll at ak genn wàll mën nañu wax mhm. ah, juróomi weer wala juróom benn 2024 Euh, bi deuxième mandat la. Mhm. waaye deuxième mandat soo ko analyser sur le plan empirique nga toftale am na mandat bi euh, taxaw na beneen mandat toftalu na ci yow dafa analyse scientifique. parce que ah dégage woo problématique ba tax ñu naan dafa am euh, dafa am problème parce que sur le plan juridique dafa sulli débat boo xam ni dafa am thèse ak antithèse. Hmm. tant que dégage wu ni problématique bu ñu man xam lan la mbir mi lan la. problématique euh, moo lay permettre nga am les thèses antithèses synthèses ak conclusion plus tard xam analyser ñaari mandat yi nu ñu tëddee mhm. euh, premier mandat bi Macky Sall def sept ans la mhm. mi ngi lalu ci benn loi de révision bu Abdoulaye Wade président Abdoulaye Wade góor gi euh, initié woon en 2008. en 2008 21 octobre 2008 c' la loi constitutionnelle euh, numéro 2008 66. Mm -hmm. du octobre 2008 euh, projet de révision boobu dafa porter le mandat à sept ans. Mm-hmm. dégg na ay constitutionnels yuy wax dañu koy tëb dañuy tëb phase de 2008 boobu dañuy defe nii. Mm-hmm. constitution 2001 moo fi nekkoon ñu ni mandat cinq ans le président ab euh, Macky ñëw indi benn révision en 2016 waaye dañuy tëb ni en 2008 am na benn révision. constitutionnelle sur l' article 27. article 27 boobu lu mu tëddee woon ci njëlbeen. ba ñuy taxawal constitution bi di ko jébbal réew mi par référendum article 27 bi dafa ne woon la durée du mandat du président de la République est de 5 ans 5 ans laa wax. 5 ans. Mm-hmm. Mm-hmm. le mandat est, est une fois. Mm-hmm. moo doon alinéa 1. Mmh. alinéa 2 ni cette disposition ne peut être modifiée que par une loi référendaire mooy ñaari alinéa yi ñooy article 27. Mmh. c'est une seule et même disposition disposition boo ko déggee mooy article. Mm-hmm. ah ñu bari xamuñu disposition mooy article article la leen disposé numéroté leen. Mm-hmm. donc c'est une seule et même disposition euh, le président Wade en 2008 dafa initier donc benn projet de révision porter le mandat à sept ans. le mm-hmm. mandat était de cinq ans à l'origine constitution constituant originaire dafa le mandat la durée du mandat est de cinq ans. Mmh. le président Wade waaye gis nga article 27 boobu alinéa 2 bi def ni cet cet cette disposition ne peut que par une loi référendaire. Hmm. loolu mooy lan mooy ni booy initier benn projet de révision bu lu jëm ci article 27 bi ci disposition parce que disposition article 27 bi mooy disposition. waaw loo ci laal élément moo xam durée nga laal. Hmm. wala limitation des mandats. Hmm. loo ci laal laal nga disposition bi. boobaa da nga ko war a jébal euh, référendum nu nga koy jébalee référendum da nga koy njëkk jox assemblée nationale. ñu adopté ko. adoptation adopte euh, ñu suñ ko adopté mooy première phase dañ koy voté euh, dañ koy voté à la majorité absolue. des mmh. députés. Mmh. mooy première phase waaye day am deuxième phase à l'initiative du président président de la République mën ni bon comme que assemblée nationale euh, adopté na ko loi bi mais l'adoption n'est pas l'adoption n'est pas définitive président ni léegi su ma neexee jébalaat ko assemblée assemblée nationale wala le parlement s'il y a deux chambres. pour ñu def benn benn benn ce qu'on appelle euh, ñu voté ko à la majorité qualifiée des trois cinquièmes loolu mooy par la voie parlementaire. Mm-hmm. wala ma jébbal ko peuple bi directement par voie de référendum. Mm-hmm. kon moom mooy tànn. mooy tànn foofu après bu fekkee ni. assemblée nationale adopté na ba pare. Mm-hmm. projet de révision bi. projet de révision pas de projet de loi ici. de projet ah de révision. ah parce que projet de loi bokkul projet premier ministre moo koy proposé. Mhm. avant que président mais projet de révision président moo ko moom. Mhm. mooy gardien de la constitution ministre premier ministre yoo xam nekk ko neexee premier ministre proposé mais président mën na ko gàntal waaye projet de révision constitutionnelle moom mën na koy njëkk jox assemblée nationale première étape ñu adopté ko à la majorité absolue. Mhm. deuxième étape nag ñu seet nag lu constitution wax ndax dafa def su fekkee ni constitution bi dafa nii révision bi voie rek la mën jaar. Ah, par référendum rek boobaa après adoption daf koy jébbal peuple yi par référendum. Mhm. article 27 bi kaa bopp la daf ko waroon lu mu ci laal mooy durée bi wala limitation des mandats bi ki le mandat est renouvelable une fois lu mu ci laal ci benn ci ñaari daf ko waroon yóbbu euh, donc. Euh, référendum ñaari benn disposition am nañu président de Ablaye Wade dafa lu ma def mooy dafa jël euh, projet de loi bi. yu yóbbu ko par la voie parlementaire maanaam daf ko jébbalaat assemblée bi ñu voté ko à la majorité qualifiée des trois cinquièmes yóbbu ko yóbbu ko référendum mm-hmm. am ñu critiqué ni waaw fu mu ko jaaree du noonu parce que cette procédure est anticonstitutionnelle parce que constitution bi def nii euh, révision bu naan am ci ci article 25 ci ci référendum réglementaire mm-hmm. am nag ay juristes yu bokk ci camp présidentiel à l'époque ñu ne non ñaari phrase yi article 27 yi alinéa 1 deuxième phrase bi ni le mandat est renouvelable une seule fois boobu rek la alinéa 2 di wax ni ah cette cette disposition ne peut être modifiée que par une loi référendaire ñu ni deuxième phrase bi rek lay wax waaye waxul première phrase bi ça veut dire première phrase bi mën na jaar par la voie parlementaire deuxième phrase bi rek moom mën jaar par la voie référendaire waaye dañu juum. dañu juum kay. dañu juum parce que disposition ah c' est une seule disposition. Hmm. kon ña kon euh, loi bi dafa waroon jar donc la loi était le projet était vicieux et on a même parlé de fraude constitutionnelle. Hmm. à l' époque des juristes donc waaye jàll na ba tax na bu mu duggee dans le corpus constitutionnel dafa nekk loi dafa dañ ko légaliser. Hmm. kon lu ñu lu ñu lu ba légaliser ko nekk na loi ba dugg ci constitution bi. kon doon à l' origine bu muy judd c' était anticonstitutionnel mais ban ko jébbale ban ko promulguer. c'est devenu constitutionnel. Mmh. En, en, tout cas ça a été constitutionnel. révision boobu nag le président Abdoulaye Abdoulaye Wade ba mu ko taxawalee dafa am lu ñu ci wax ci biir. Mm-hmm. ci biir projet de révision dañuy cette modification. Mm-hmm. maanaam qui porte le mandat à sept ans. Mm-hmm. ne concerne pas le mandat en exercice du président de la République. au moment de son adoption de son adoption par l'Assemblée. Hmm. maanaam c' était dit dans la constitution. c' dans le projet. dans le projet. dans le projet ban koy jébal wax nañu leeral nañu ñi projet de révision bi du appliqué ci mandat bi. Mhm. te loolu soo gisee ñu wax ko loolu mooy le principe de la non rétroactivité. ñu koy weddi nii. Mhm. les lois constitutionnelles ay rétroactivité na concept ay lois dañuy jum. Mhm. parce que il y a une tradition juridique au Sénégal depuis plus de vingt cinq ans qu'a évoqué le conseil d' ailleurs Mm-hmm. donc euh, lors d'une seconde révision de l'article 27 alors euh, tradition boobu mm-hmm. euh, juridique boobu depuis 1970 mën nañuy wax ni ba ñuy instauré pour la première fois sous l'ancienne constitution 1963 mm-hmm. le principe de la limitation des mandats à deux en 1970 le président Senghor moo fi nekkoon waaw mi ngi doon def un second quinquennat après donc après 63

au suffrage magistrat euh, euh, au suffrage euh, le président de la République est élu au scrutin majoritaire. Mhm. au suffrage universel et au scrutin majoritaire à deux tours. Mhm. c'est la première phrase de l'article 21 c'est actuellement l'article 26 l'article conseil bu jiitu l'article 27 bi noonu tëddee. Mhm. c'est une reprise donc de cet article de de, de cette formule formulation de l'article 21 de l'ancienne constitution ñu toftal ci beneen phrase ñu ni il n'est rééligible qu'une seule fois. Mm-hmm. loolu mooy ni bu amee benn mandat bu amaat beneen mandat jax kon foofu la ñu njëkk introduire. <laughs> rééligible le principe de la limitation des mandats maanaam bu ñu ko falee benn yoon. benn réélection lay amaat bu ñu falaat ko benn yoon rek lay mën a doon. pare na ci pare na ci kon mm-hmm. loolu ñoo ngi ko introduire en 70. Mm-hmm. waaye à l' époque dañu ne principe limitation boobu du appliqué wu su mandat bi. du appliqué wu mandat 68 73 immédiatement. ça permet au encore un

Hmm. ah c' est une c' est une ay coutume rek ñooy dox. en Angleterre. en Angleterre. Hmm. fii nag c' une tradition juridique. ok loolu binduñu ko. Hmm. waaye doxal nañ ko. saa ñu bindee rek ñu naan loolu lii concerné wul lu weesu. waaw c' est tey lay prendre effet dem ci kanam. te loolu ce sont des précédents qu' a observé au Sénégal. ok aussi dans d' pays. ok dans d' pays qui qui qui. Euh, euh, qui ont la même tradition juridique que Sénégal. ñoom tamit duñu appliquer une loi de révision. à un mandat parce que mandat bu taxawee rek acté nañ ko dès le par prestation de serment duréem acté na taxaw na bu yàgg lu ñëw ci gannaawam ci biir mandat bi révision mënu mm-hmm. ko delloo ginnaaw parce que taxaw na ba pare par mm-hmm. prestation de serment donc kooku loi de révision boobu dafay xaar ba app bi jeex app ay bi bu jeexee ñu soog a appliquer loi bu bees bi loolu pour maintenir donc euh, euh, que les lois soient intangibles kenn du leen kenn du ko du bañ ko fooy ku foru rek ni damay appliquer nangam yokk ko wala wala wàññi ko donc dañuy bàyyi ba dama wala fekk. Mhm. doo ko laal bu jeex ñu soog a appliquer. parce que mhm. parce que les causes ont été déjà posées à l'entame du mandat. donc qu'est-ce que vous voulez dire. je veux dire par là que euh, de limitation du mandat boobu. Mhm. amoon en 70 moo initié cette tradition juridique comme quoi euh, la loi de révision ne s'applique pas au mandat courant kon c'est après le mandat qu'on commence à dénombrer. que c'est qu'il y, qu y, a un point de départ, commence à dénombrer nombre de mandats. Et c'est valable aussi lors de la révision du Abdou Diouf Def. Mm -hmm. En 1991, vous savez que Abdou Diouf, il a d'abord continué le mandat de Senghor, mm -hmm. le mandat de 118, 43. Moko Diardiel en 81, mm -hmm. 1er janvier, en tant que dauphin, Agalé 83. Mm-hmm. C'était un mandat senghorien parce qu'après, il y a eu Senghor Def. Il y a eu Abdou Diouf Def. Mm-hmm. donc le premier mandat personnel de Abdou Diouf c'était le mandat de 83 88. Mm-hmm. et deuxième 88 93. et c'est lors du cinq ay quinquennat la ba tey ba tey depuis 63 ay quinquennat ma fi nekk. Mm-hmm. Euh, sauf le début qui était un qui était coupé 4 ans qu'on a projet 167 ba ba 68 mu nekk 5 ans mais c'est 4 ans la woon au départ donc ay quinquennat ñoo fi dox alors le deuxième quinquennat Abdou Diouf dafa introduire un projet de révision qui porte sur deux éléments importants, mmh. qui porte sur va donc euh, la durée de mandat à 7 ans. Donc, en 1991, mm-hmm. boobu c'est la su ma juumul c'est la loi de révision 91 46 du 6 octobre. Mm-hmm. ci le président Abdou Diouf le mandat à 7 ans. Mmh. il mm-hmm. était Euh, le principe de la limitation des mandats avait été abrogé en 76 bi ñu indi woon en 70. Mhm. Senghor daf ko dindi en 76. Abdou Diouf réactualisé ko le principe de la limitation des mandats la même formule ah. pour moom it mu man a amaat. continuité quoi non c' est délimité mënoon na am ab indéfiniment ay mandats mais daf ko daf ko delluwaat moom Senghor. Mhm. Abdou Diouf Abdou Diouf daf ko indiwaat. Mhm. daf ko indiwaat pour ni euh, euh, dorénavant. le, euh, il le président n'est rééligible qu'une qu seule fois. À partir donc 91, appliqué au point de départ, c'était pas en 91, pas en 91 hmm. Le président avait évoqué le président non rétroactivité des lois. Mmh. cette tradition juridique qui veut que ça s'applique après le mandat. <laughs> C'est pourquoi le président Diouf a fait un mandat. Maître de la Constitution aussi, le droit, c'est l'histoire. wa c'est ça, l'histoire. a mhm. une Donc il a, il a, a raison. Il a une histoire constitutionnelle, et mhm. c'est ça la tradition mhm. ah. Mais qu'on ne peut pas fonder sur une autre constitution dans oh, non ça ça dépend rek constitution bu taxawee rek bu ñu ko promulguer rek. état pays nu ma promulguer rek constitution mooy mooy wéy c' est la loi fondamentale du pays. ok ah okay. donc une fois que c' est promulgué. la loi du pays. et Abdoulaye Wade qu'est-ce qu'il là je termine seulement. pour pour introduire bi mm-hmm. ñu introduire en 91. Mm-hmm. appliqué wuñ ko en 91. c' est en 93 ba naa bi jeexee lañ ko appliqué et la ñuy évoque aussi le le point de départ de la limitation des mandats à deux. Mm-hmm. donc yaa ngi suñu jëm. <coughs> donc 93 moo tax le président Diouf a fait son dernier mandat. en 2000. 80 ba 2000. ba 2000 waaw donc 7 ans la def. Mhm. moo ko permettre mu amaat beneen candidat possibilité de déposer candidature en 2000. il pouvait mhm. mais dafa il a fait lui aussi abroger cette disposition de la limitation des mandats daf ko daf ko daf ko abroger en 98. Mhm. daf ko supprimer ce qui fait que à partir de 2000. ah euh, les mandats étaient délimités c'est-à-dire mën nga indéfiniment des mandats. bu wàdd kon Abdoulaye Wade bu gañe woon Abdou Diouf bu gañe woon en 2000. mënoon na poser waat encore. ba euh, plusieurs femmes. parce que d' abord mën na posé waat su fekkee dindi bi. parce que mm, en 90 premier mandat de sept ans bi c' était en 93. Mm-hmm. ba 2000 kon il avait droit à un deuxième mandat de sept ans. à partir mm-hmm. de 84 euh, de 2000 ba 2007. s' il avait gagné. Mm-hmm. Abdou Diouf mënoon def loolu parce que. donc euh, li dénombrement bi des mandats ça point de départ bi c' était en à partir de l' application la nouvelle règle. alors le président Abdoulaye Wade bi bañ ko falee en 2000. Mhm. dafi fekk ce projet de révision. Mhm. kon moom it mënoon na amaat mandat illimité bu laal loon constitution bi. sa oh, euh, moom non c'est-à-dire que moom à partir de boobu mandat boobu mooy compté. au premier mandat boobu deux mandats parce que loi de révision dugg na ba appliqué na ba pare appliqué na ba pare waaw. il avait droit à un mandat de sept ans. Mhm, s'il n'avait pas introduit une nouvelle constitution. ok. Euh, mais nag euh, euh, fait nouveau en 2001 à dix mois après son élection. le mm-hmm. président dafay dafay introduire pas un projet de révision. mais dafay mm-hmm. initier une nouvelle constitution. Mm-hmm. ce qui est problématique parce que su la falee sur la base d'une constitution. nga prêter serment à la sur la base de cette constitution. je m'engage à respecter et faire respecter scrupuleusement les dispositions de la constitution des lois. soo porter atteinte à la constitution mën na même poursuivre en haute cour de justice. waaw hmm. fii nag constitution bu bees peuple bi approuvé ko approuvé wu donc hmm. moment boobu su coup d'état amoon Sénégal. Hmm. kenn wax dara parce que le président était dans l'illégalité muy porter atteinte à la constitution. parce qu'il a prêté serment de respecter faire respecter scrupuleusement les dispositions de la constitution des lois. mu changé ko en 2001 heureusement référendum bi jàll à ñu plébiscité ko. publicité boobu donc confirmer son élection au suffrage universel de 2000. Mm -hmm. donc légitimité mu taxaw kon constitution bi dee mais peuple bi moo plébiscité constitution bu bees kon constitution bu bees bi taxaw na. boobu mooy mhm. bu légitime bi. Mhm. en 2001. Mhm. waaye nag 2001 lu may def ak mandat bi taxaw mandat bi nga xam ni constitution bu weesu moo ko taxawal te constitution boobu dee na lu may def ak mandat bi mandat bi dafa war a dee. <laughs> président bi war a falaat. dañu war a prêter parce que Mm-hmm. alors qu'est-ce qui s'est passé constitution bi def ni bon pour régler ce problème on ne peut pas supprimer d'un trait le bénéfice l'élection du président au suffrage le peuple souverain on peut pas gommer mm-hmm. l'élection mm-hmm. donc l'élection est là du président le référendum est là pour confirmer l'élection donc on ne peut pas supprimer euh, le mandat on le maintient mais le problème c'est que la constitution nouvelle a maintenu la durée du mandat une disposition bu bees ni la durée du mandat de président est de cinq ans. Hmm. donc bu ñu appliquer constitution boobu. dafay hmm. dafay rétroactive parce que constitution boobu dee na. Hmm. kon mandat bi dañ ko waroon couper à cinq ans encadré ko. 2005 le président su fekkee on prend le point de départ son élection en si on avait appliqué la règle. sur la durée des mandats en en mandat mort. mandat préconstitutionnel. donc euh, euh, on n'a pas fait ça. Il laissé courir le mandat à 7 ans. Mhm. Et parce que c'est la discussion transitoire. Euh, L'article 104, la discussion de monnaie, mhm. le président en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme. Oui. Jusqu'au terme prévu, prévu par la nouvelle constitution. 5 ans, jusqu'à son terme. Mm -hmm. Or, le terme, la durée de 7 ans n'est plus valable. <laughs> parce que c'est conscient à projet. alors ce qui s'est passé mooy on n'a pas aussi réélu le président parce que nouvelle constitution bu taxawee da ngay da ngay da ngay war a falaat. Hmm. même su fekkee fal na la yàggul. Hmm. il a bénéficié d'un suffrage absent à peine dix mois il a fait un référendum c'est vrai mais au moins à titre symbolique l'Assemblée nationale qui venait d'être installée nouvellement devait se prononcer euh, au suffrage universel pour reconnaître le président ça ne s'est hmm. Et il, n'a pas. Chose plus grave, c'est qu'en 2001, le président n'a pas renouvelé son serment sous la nouvelle constitution. Le président n'a pas prêté serment jusqu'en C'est ça qui fait que le mandat de n'était pas un mandat constitutionnel de 2001. Mmh. Hmm. Donc il pouvait prétendre non effectivement parce que mandat boobu constitution bi disposition transitoire moo ko jël en charge. c'est pas une disposition transitoire qui élit le président de la République. Hmm. Et puis cette disposition n'a pas encadré la durée du mandat légalement. Mhm. Le président n'a pas été réinstallé, il n'a pas prêté serment. Ah, il n'a pas été réélu. Donc, donc mandat boobu c'est un mandat de fait. Mhm. ah un mandat de droit parce que dafa dugg ci constitution boo xam ci. bokku ci waaw te loolu waru. loolu moo tax mandat bu mu doxal doxal ba 2000 ba 2007 bokkul ci constitution 2000 même si la la la la la disposition 104 daf ni le président poursuit son mandat jusqu'à son terme alinéa deuxième alinéa toutes les deux autres dispositions sont applicables am nañu sama cousin Ismaël Madior Fall l'actuel ministre mhm. la justice bi jox na livre sax livre sax bu ma dédicacé mhm. fu mu koy waxee les révisions constitutionnelles au Sénégal waaw mhm. ah, waaye bi ngi nii à mon cousin et ami Babacar en hommage sa profonde connaissance de l'histoire politique du Sénégal Ismaël Madior Fall Euh, ni euh, pourquoi le premier mandat de Wade était un mandat constitutionnel de 2001 C'est mmh. parce que, en principe, on pourrait dire que ce mandat est un mandat antérieur à la Constitution, que Warchi mmh. C'est une thèse. Mmh. Mais comme la dissolution transitoire dit euh, que le, le président, euh, le, le président poursuit, en fonction poursuit son mandat jusqu'à son terme, quand terme bon, terme bu bu ancienne constitution légalisée la. Mhm. waaye deuxième lii bi deuxième alinéa 2 bi toutes les autres dispositions qui sont applicables foo la évoqué nii kon en dehors la durée leneen lépp dafay concerner mandat euh, kii 2000 action euh, constitution daf koy prendre en charge. Mhm. et et donc par la même occasion la limitation des mandats bi introduire parce qu'on vient de réintroduire encore en 2001 dafay la limitation des mandats l'ancienne formule était. hein, euh, sous, sous l'article de l'article 21 qu'il n'est rééligible qu'une seule fois. le mandat est renouvelable une fois. Mhm. C'est la nouvelle formule. C'est différent, hein C'est différent, mais c'est presque la même chose. <laughs> C'est la personne. Sur la personne, Donc, il n'est rééligible qu'une seule fois, c'est le président de la République. la deuxième phrase de l'article mhm. Donc, muy Ismaïla Madior Fall euh, mon ami nee na donc cette deuxième phrase mooy wane ni que ça s'applique toutes les dispositions cette cette en fait du moins le le deuxième alinéa de l'article transitoire 104 qui dit que toutes les autres dispositions lui sont applicables c'est ça qui prouve que même le principe de la limitation des mandats de, hein, de l'article 27 de la présente constitution mm-hmm. lui est applicable. Parce que la durée ne lui, est pas, applicable. Donc ce mandat est comptabilisé au mandat dominant. Mais là où je suis pas d'accord, c'est que pour les raisons que j'ai évoquées, ce mandat, on n'a pas renouvelé à titre symbolique de l'élection du président de la République. Il n'a pas été réinstallé sous serment. Quel mandat Le mandat de 2000 En le

mooy sa mandat. Hmm. li koy indi. Hmm. mooy mandat boobu Abdoulaye Wade commencé ba 2007 à partir de indi son premier mandat constitutionnel appliqué à la constitution de 2001 parce que c' la première fois qu'il fait cinq ans. muy 2001 2012. waaw c' est la première fois qu' il resté presque. sans qu'il se fasse appliquer sa constitution de 2001. voilà la constitution ne s'est pas appliquée à la. à, parce qu'il n'a pas <laughs> représenté comme j'ai dit. Mmh. Alors, en partir de 2017, 2007, le président de la République prête serment pour la première fois sur la Constitution des En partir de 2017. En 2017 2000, 2007. 2007, waaw 2007. foofu la soog a appliqué sa propre constitution de. c'est lañ ko appliqué à sa personne. la durée Après la fin d'un mandat de la prestation de serment. Mmh. Donc, le premier mandat, qui était un mandat de fait, ne pouvait pas être un mandat de 2009, parce que c'est ce, ce second mandat qui était le premier mandat constitutionnel hein, venu appliquer les dispositions de la loolu tax Barthélémy Dias wax ne ñun xamoon nañ ni. voilà Abdoulaye Wade amoon na possibilité defaat beneen mandat en 2012. voilà loolu la politique yi dañuy xeex xam nañu dëgg fu mu féete waaye pour des causes raisons politiques dañuy après dañuy wax leneen. ok nii la demee le président. donc la constitution de Wade de 2000. lui a été applicable de 2001 à 7 ans plus tard en 2007 ans plus tard 6 ans plus tard en 2007 2007 oui. prêter serment donc foofu le président di am premier mandat de 5 ans parce qu'il vient de prêter serment la durée de 5 ans la durée conforme à l'article 27 ça la constitution c'est complexe alors donc il avait droit à un deuxième mandat en 2012 en 2012 c'est clair c'était un deuxième mandat constitutionnel mais fii mbir hmm. ci 5 ans hmm. ba ñu réviser constitution bi boobaa dañu ne ah mi ngi soog a def 5 ans kon mën na amaat 5 ans. mais dafa réviser. waaye dafa réviser ah, dafa falu 2007 rek 2008 mu indi révision porter le mandat à 7 xel yi jaaxasoo. te hmm. révision boobu nag bi porter le mandat à 7 ans buy nuroog mandat bu jiitu am 7 ans la woon ba pare jaarale ko dans la procédure euh, par la procédure légale muy par voie référendaire. référendaire mu jaay ko par la voie parlementaire moo xajamal yëf yi. Hmm. ak euh, moo dem ba ñuy wax waxeet. loolu nag réew mi sonn ci si tey. Mm-hmm. loolu moo tax. Ah, mais bu ma bu ma dégloo sa logique. waaw ce qui veut dire que su Abdoulaye Wade gagné woon en ak révision constitutionnelle bu mu andi. mënoon na amaat encore un autre mandat de sept ans. fi waaw te dina amaat encore bu 2012 jeexee. que dénombrement bi limitation bi dafay <laughs> départ dañuy waaw à partir de parce que ça ne rétrograde pas. waaw parce que parce que révision 2008. du ko appliqué actuellement. parce que une fois que laal nañu ko rek. man ça ne s'applique pas révision la rek ba ñu promulgué ko rek. waaw na kon pour mu appliquer. il faut que ñu dugg ci beneen mandat voilà kon lépp lay appliqué en même temps. parce d' accord donc en 2012. ba Macky Sall falu. il venait de bénéficier. de ce de ce mandat de sept ans waaw mandat sept ans. waaw avec la révision de 2008. de 2008 boobu. Mhm. Ablaye Wade mi ko indi. Mhm. appliqué wu ko mandat am. parce que mhm. mënu ko appliqué. mais mandat ak successeur am lay appliqué. moom moo prévoir woon. waaw bénéficier de ces sept mais mais faloo waaw Macky nag. moo ci bénéficier de sept ans waaw mu ci barkeelu. waaw bon mu am sept ans. Macky Sall donc le premier mandat bi mu def. premier mandat 2012 2012. ah par la loi de révision de 2008. de 2008 bu Ablaye Wade sampoon. dégg bu wax fi mhm, bu baax premier mandat du président Macky Sall mhm. régi par la loi de révision de 2008 qui porte le mandat à 7 ans. oui une révision faite par Ablaye Wade. Ablaye et mhm. quand Macky di man damay def 5 ans. wax conseil ñu ngi ko non mënu alors vous devez appliquer la constitution bi même si fii la procédure était illégale. Mm -hmm. c'est intégré dans le corpus. la constitution donc euh, euh, laal. Mm-hmm. bu jeexee nag boo defee révision entre temps bu jeexee wala nga démissionné. ok moo tax mu jeexal mandat sept ans bi. il a fait une révision il a fait une euh, projet de loi de révision. oui en en euh, au cours du premier mandat. Mm-hmm. pour indi la norme ancienne. qui porte le mandat a cinq ans. Mm-hmm. ba pare. indi référendum parce que ba léegi xam nga début jaar woon référendum. jaar référendum waaw Macky Sall nag dafa indi daf ko jaarale ci parti bi avec les quinze mhm. mhm. euh, euh, ci dugal donc article bi pour rétablir la durée initiale. Mhm. du constitution original qui était de cinq ans. parce que Ablaye Wade daf ko def par par faute constitutionnelle mu ñu baal. Ah, donc mu indiwaat cinq ans yi ba pare jaare ko par la voie légale du référendum. ba pare initial am na am na lu ñu mën rafetlu dafa ne woon dafa si projet de révision boobu ban koy jox conseil constitutionnel dafa amoon benn article 6. Mhm. bu indi woon benn alinéa 2 bu boole ci euh, euh, euh, article bi bu ni cette disposition maanaam révision bi day appliqué ci mandat yi kon intention Macky Sall c'était d'appliquer les cinq ans a son premier mandat. Mhm. Ah, la ko conseil wax na mënoo def cinq ans dafa indi disposition pour appliquer. Mhm. conseil kon il faut effacer mu effacé mu ni la euh, mandat courant est hors de portée de la loi nouvelle en réponse en février ba ñu ko def avis décision du février mm-hmm. numéro C 2000 répondre le conseil ko ni ko mënta nekk parce que tradi fa nekk tradition juridique boobu mm-hmm. qui veut qu'on n'applique pas une révision au mandat courant mm-hmm. kon def ni sa mandat yi sept ans ngay soog a appliqué durée de cinq donc en en xam nga dafa def sa c'est le chef sa mhm. bu fekkoon ni disposition boobu des cinq ans appliqué na woo premier mandat mhm. en 2017 les mandats euh, Macky Sall di si lay soog a def cinq ans waaw donc si ah, si la révision de 2016 mhm. ah était euh, appliquée à euh, son mandat en cours était appliquée au premier mandat kon 2017 lay yem waaw waaye waaye dafa dem ba 2019 loolu moo wax mooy prouvé ni appliqué wul ci mandat boobu te conseil kon moo ni ko du appliqué. kon à partir de 2019. très bien ci la président Macky Sall tamit di am premier mandat de cinq ans. ci la appliqué à sa révision à la nouvelle règle comme nee naa la premier mandat. di mhm. par la loi de révision de 2008. Mhm. le deuxième mandat di par la loi de révision de 2016. Mhm. kon ñaari loi de révision yu wuute la ñoo régi ñaari mandat yi. parce que am na révision. am na révision quand y a une révision ça s'applique à kon révision 2016 bi y a référendum. dafa def toilettage. Hmm. dafa effacer révision de 2017 parce que référendum moo ko dooleel parce que béy du woon référendum. Hmm. loolu moo tax donc en deux mille en 2016. Hmm. ba ñu commencé appliquer. Euh, les lois de révision de 2016 à partir de 2019. la l'entrée en vigueur quoi. si on peut dire l'entrée en vigueur à la oui. fin de son mandat de sept ans. Oui, oui. Euh, a été donc euh, initié. Ah, ce qui lui donne constitutionnellement un premier mandat de 5 ans. De, de ans. c'est la première application de la révision de la problématique. C'est le second mandat successif du président mm mais c'est le premier constitutionnel d'application de la règle. Parce que la loi ne rétrograde pas. La constitution est en vigueur, loi bi muy juddu. Hmm. loi de révision bi. Hmm. Ah, euh, loi bi muy juddu du moins. Hmm. Euh, ba koy loi de révision di fekk fekk na fi mandat bu ñu actualisé. juridiquement te constitution bi waaw ko te constitution étant vécu. dafay xaar boobu boobu parce que c' est valide. Mm-hmm. a été validé avant la révision. Mm-hmm. la révision bu mandat bu effet yëpp jeexee cessé entièrement. Mm-hmm. révision appliquée. donc sur le plan constitutionnel pour que mu leer. que c' est à partir de 2019. par rapport à la révision du président Macky Sall de 2016. la entrée en vigueur. ci la entrée en vigueur ci la soog a def 5 ans. waaw la soog a def 5 ans. il a fait un mandat de 7 ans. un mandat de 5 ans. le premier régi par la révision de 2008. de 2008 le second régi par la révision de 2016. te bu bi boobu xewi na. li xewi na parce que dañuy battre waat carte yi. <laughs> waaw te am na ñu naan ay juristes yu naan bon durée bi rek la laal. ok ah ba indi 5 ans mais tëb nañu sax révision 2008 bi nii dafa confirmer rek ancienne constitution mais il y a eu ah durée bi. avec le référendum que l' article 27 bi dem ci jaar ci révision 2016. Mhm. la révision donc euh, numéro 2016 10 du 6 avril 2016. Mm -hmm. euh, article bi mhm. dafa changer totalement. waaw dans ces deux phrases. parce que dafa ne nul ne peut. Mhm. bi. dafa changer durée bi. deuxième phrase bi dafa changer formulation alors que dañu ne mandat est renouvelable une fois. bii nag dañ na nul ne peut faire. plus de deux mandats ne peut exercer de deux mandats donc phrase bu bees la. Mhm. comme que jar référendum article bu bees la article bay nekkatu booy. phrase bu bees moo am ci constitution bu bees ak durée bu bees ci ak durée bu bees. kon article bu bees la. donc mënul applicable. ak li fi nekkoon en 2016. te même ah, bu avant te comme que benn disposition la. Mhm. bu ñu appliquer euh, benn élément. Mhm.

kon day commencé war parce que mais ñaar yooyu ñoo ànd durée ak limitation ñoo yem ànd ci dispute ñaar yooyu ñoo dugg référendum. ok donc. qu'est-ce que ça signifie. ça signifie que d'abord la formule suñu si étudier la formule nul ne peut faire. ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs am na ñu ni leer na nañ nul mooy kenn ñëpp kenn mënu ko waaye du ñu jum disposition bi leerul. Hmm. pourquoi leerul ça a été mal écrit d'ailleurs je le dis ah. ah bon parce que nul. ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. cest à que, que le président de l'ASC de mon quartier. Non, je parle des députés. je, pense aux députés. Parce que dans le cadre de la Constitution, on ne parle euh, des ASC. Euh, on parle des pouvoirs <laughs> publics. Les députés, ils, ont un, ils sont élus comme le président. Est-ce que les députés ne peuvent pas faire plus de deux mandats Ils peuvent faire plus de faire deux mandats. Ils sont exclus dans le nul. Mais Donc clair le, le terme nul, le terme nul est exagéré. Il fallait préciser le président de la, de la République, aucun président dans l'exercice de ses ne peut faire, plus de. C'est comme ça la bonne formule. Formule et, il faut le reconnaître, elle est nulle. Nul c'est un autre débat encore aussi. Alors, donc la formule n'est pas bonne. Maintenant, il y a un autre élément, consécutif. Moi, le top pendant. Des dettes. teglanto. Successif, moi, le teglanto. consécutif mooy lu bàyyi ko. consécutif. mooy lu soqee ko xam nga consécutif. oui le terme consécutif évoque une dérivation soit dans le temps en, en, en vertu de la Genèse. soit <laughs> à, à partir de, du principe c'est-à-dire en vertu donc d'une nouvelle loi. Moussa Ndiaye li nga wax nii c'est compliqué waaye moo tax ñu les gens n'ont pas compris. suñ ko euh. joxoon suñ ko joxoon sujet d'agrégation. kon gars yi dañuy daanu. nul ne peut nul ne plus de deux mandats expliquer et discuter. professeurs yëpp yu interview ñu bëri bëri ils auraient zéro on vous n'avez pas compris. professeurs yi nekk fii hmm. vous n'avez pas compris le sujet. mais consécutif ça signifie qu'il se suit dans le temps. non. parce que les deux mandats ne sont pas consécutifs am na benn benn benn bu ma lire euh, fan yi ci dans le journal benn journal de la place. Mhm. Euh, lire naa fu muy wax euh, lu ma lu ma jaaxal. kan la. waaw pas la peine may ci turam. ok ah, donc mais daan ko xam dina xam boppam. Uh-huh. à de ce terme consécutif nee na je pense que fu mu ko bindee. derrière c'est à l'article ouais, derrière. sur la base de la conjecture. Attendez, Alors, il disait que uh -huh. les deux mandats sont consécutifs, c'est-à-dire les deux mandats sont consécutifs. Mais non, c'est le dernier mandat qui est consécutif du premier, s'il dérive du premier. C'est un seul mandat entre les deux qui est consécutif du premier. Le premier ne peut pas être compté, euh, consécutif du postérieur. C'est le postérieur qui peut être consécutif, consécutif de l'antécédent. ci to mandat bi tof toflu moo consécutif ci mandat bi ki jiitu waaye mandat bi jiitu kon le premier n'est pas donc consécutif aurait dû être au singulier on hmm. aurait dit nul ne peut faire plus d'un mandat consécutif su fekkee ni on interprète consécutif plus d'un mandat consécutif d'un mandat pas plus de deux mandats consécutifs bon là si nul ne peut faire plus d'un mandat consécutif tu comprends qu'il y a un mandat introductif et un mandat consécutif et là il si consécutif est au est singulier pour te dire que la la est. mal écrit je m' devant l' opinion mais c' mal écrit. parce que consécutif boobu warul nekk pluriel parce que soo ne fait deux mandats consécutifs ça sous-entend un mandat antérieur et deux mandats consécutifs du premier ça veut dire trois mandats. c'est que ça veut dire il y a un et duquel les deux mandats postérieurs sont consécutifs et qui sont donc des mandats supplémentaires. Ah. ça fait trois mandats. Si, bien sûr, on, analyse sous l'angle de la dérivation dans le temps, c'est-à-dire de la jeunesse. Mhm. Mais si consécutif s'analyse sous l'angle de la dérivation à partir du primat, du principe, c'est-à-dire d'une règle, la loi, c'est donc le premier mandat d'application qui est le mandat consécutif à la loi. Mmh. Donc, dans les, donc, donc ça veut dire que dans ce cas, le premier mandat qui, qui applique la consécutif à la loi et le second, l'actuel mandat du président de la République c'est le premier mandat qui est consécutif à la loi de révision de C'est l'actuel qui mmh. fait 5 ans. Mmh. Donc a droit un second mandat consécutif à cette nouvelle règle. Si on interprète, bien sûr, consécutif au sens de dérivation à part du principe. Mais si mmh. on interprète aussi ça au sens de la, dérivation dans le temps, il a fait un mandat de 7 ans. Il vient de faire un premier mandat consécutif après son mmh. un deuxième mandat consécutif. c'est l'analyse c'est ça que, comme ça qu'on doit interpréter. Mmh. Euh, donc euh, cette phrase la donc, donc est-ce est que ça n'entraîne pas donc une nécessité de revoir ah, encore ah, cette constitution-là pour mieux, pour mieux l'adapter au terme des gens cette, écriture n'est pas bonne, il faut réécrire cette disposition. Et ça va entraîner donc on une, effacer un nul, référendum oh, oh, oh, Parce que c'est vrai que si on touche à l'article, mais là si on touche à la formulation, Donc je pense que je pense qu'on je pense qu'on pourra. révision. Négocier. la disposition l'alinéa 2 va va poser problème. parce, parce qu que dès qu'on en touche aussi, ça risque de donner au président encore <laughs> voilà, voilà. De, ramener les cartes à zéro. cher Diane, je pense qu'il faudra effectuer un toilettage dans notre constitution. Dans notre constitution. Il faudra changer, soit on change de constitution pour arrêter les révisions. Mm -hmm. Et donc euh, ñu euh, ficeler fixé ko tënk ko ba dootuñu ko laalaat. Mhm. pour que ko laalaat il faut donc euh, vote de à la majorité qualifiée. toute cette politique là c' est à une mauvaise écriture de la constitution parce qu'elle est écrite sur des bases politiques aussi. pas seulement pas seulement. Mmh. mais gis fi fii euh, fii tu vois que. Euh, voilà du point de vue de la, de la forme c'est pas c'est mal écrit c'est vrai. Mhm. et ça peut être interprété de différentes manières. Mhm. donc ça peut ça à confusion. ah c' est c' est une discussion équivoque. donc le président la République actuellement mm-hmm. élu. Mm-hmm. sous la base d'une nouvelle constitution qui est entrée en vigueur à partir de 2016. Mm-hmm. et qui finit en 2024 peut bel et bien prétendre à une autre candidature pour un autre mandat. Oui, bien sûr. Si on étudie donc si du point de vue mm. littéraire, on le connaît, consécutif en, en, en, en, ça peut être interprété comme ça, Dans le fond aussi, a être... vu que ces deux mandats ne sont pas régis par les mêmes droits de révision. Par les de révision. Mais ceux qui disent maintenant que ce pas, une révision constitutionnelle, mais c'est juste un changement d'un article, on, cela n'est possible que si la Constitution a été intégralement touchée. Non, non, c'est-à-dire qu'on n'a pas changé la Constitution. Oui, mais elle a été revue. On a changé Un article. Une diffusion de la Constitution. Ré révision, ça porte sur un élément de la Constitution ou plusieurs éléments. C'est ça qu'on appelle une révision constitutionnelle. Mmh. Ce n'est pas un changement de Constitution. Hmm. Comme c'était en on a changé de Constitution. Hmm. On a évacué la Constitution de 103 hmm. pour installer une nouvelle Constitution. Donc, il y a une, euh, une nouvelle, de ordre juridique. Le, nouvel ordre constitutionnel de 2001 est, se présente comme un la Mais lorsqu'on fait une révision, on amende mmh. des articles ah. ou, des, ou, des, éléments de l'article d'une mmh. construction. Mmh. Et là, on révise. Donc, et, révision. et ces révisions révision, ne peuvent pas concerner ce qui est déjà consommé, mais voilà. anticipe, voilà. va en avant. Lorsque la caution est en vigueur, mhm. lorsqu'une révision intervient, elle ne peut pas effacer les effets d'un d'un article courant su fekkee ni ces effets se poursuivent dans le temps. da koy bàyyi mu jeexal da lay li ma fi fekkoon da koy jeexal ba pare. après man ma ah, soog a prendre effet. su fekkee élément boobu mi cause bi ko posé. Mhm. lu jiitu révision bi mi ngi mhm. wëy ba tey. Mhm. mi ngi wëy bu wëyam àpp wëyam jeex. après mu soog a appliqué wu. parce que parce que valide na lu jiitu révision bi di ñëw. bu <laughs> jeexee nañu soo appliqué. d'accord moo dal. Donc, euh, euh d'accord, ça c'est clair. Le deuxième mandat, le mandat actuel. Le Je pense que les intellectuels qui vous suivent et aussi des, de gens qui, qui, ont une maîtrise une certaine connaissance par rapport à ça pourront apporter des précisions encore parce que le citoyen lambda doit vraiment savoir ce que dit la loi parce que aussi Barthélémy Diaz l'avait dit constitution bi mooy suñu kaamil euh, fii ci réew mi war nañ ko mën a respecter ci ni ñu ko tëggee euh, mais aussi ñu dem ci assemblée nationale boo xam ne euh, gis nañ ne benn bokk yaakaar ak opposition bi dañoo mat maanaam seen doole yi tey ñoo tolloo ci biir assemblée nationale Mimi Touré moom nee na député non inscrite la euh, loolu ban conséquence la mën a indi ci premier ministre bi nga xam ne foog mu dem assemblée nationale pour présenter en tout cas ce qu'on appelle euh, euh sa politique de sa politique générale. Ah, sa déclaration, sa déclaration de politique générale. ban impact la mën a andi. très intéressant avec la nouvelle configuration de l'assemblée. très intéressant comme question xam nga mm. xam nga le premier ministre vient nous a premier ministre. donc. Mm. Euh, le, le président, donc d'après la Constitution, c'est le président de la République qui nomme euh, le, premier donc, le, Premier ministre qui met fin à ses fonctions. Mm-hmm. et, le Premier ministre maintenant propose les ministres, le Premier ministre les, les nomme, il fixe leurs attributions et met fin à leurs fonctions. Mm-hmm. Alors le Premier ministre bu taxawee rek ci constitution ci dans un régime c'est day am indi. Mm-hmm. des éléments nouveaux mooy ce euh, qu'on appelle la motion de censure et la question de confiance parce que loolu dafa nekk ci dafa nekk ci disposition lu lié avec le premier ministre mm-hmm. mën na bañ am mais c'est la constitution bu premier ministre kon euh, euh, con lu ñuy wax question de confiance ak ak motion de censure lan mooy question de confiance ak lan mooy motion de censure mm-hmm. premier bu ñu ko falee dafay taxaw assemblée nationale def déclaration de politique générale wala programme am mm-hmm. laaj ndax ànd nañ ci mën na poser question de confiance ndax wóolu nañ ko mu doxal ko hmm. ñu ne déet dañ koy renverser wala député yi jël initiative au Sénégal su fekkee ni le dixième des membres de l'Assemblée par exemple nous avons 165 députés si 16 ou 17 députés mmh. déposent une motion de censure au bureau de l'Assemblée dañuy renverser gouvernement bi hmm. c'est-à-dire que si le président ne dispose pas d'une majorité de plus de 82 voix mmh. parce que actuellement sur il faut avoir 80 si on divise 82 82. ah. Mhm. il faut maintenant. avoir ah, ki am 83. mooy am mooy indi majorité bi. waaw. Euh, le président euh, avait approché peut-être qu'il a approché en tout cas Pape Diop avait rejoint la coalition euh, Benno Sig Benno. Benno Bokk Yaakaar mhm. donc si ñoom 82 la ñu amoon après législative yi. Mhm. Diop intégré donc. Benno Bokk Yaakaar ñale am quatre quatre ñale quatre vingt quatre vingt la entre l' intercoalition Yewwi ak ak Wallu. Mhm. ils ont deux ensemble quatre vingt même su ñaari coalition yi wute la mais y' a une ligue. Mhm. entente donc c' est pourquoi on parle d' intercoalition. waaw y' a aussi deux députés non inscrits comme donc celui de. Pape Djibril Fall euh, et Thierno Alassane Sall. Mhm. donc euh, ñooñu bu ñu voté ànd quatre vingt yi. day nekk 82 ñii ne 82 ay. si Mimi bascule de l' autre côté. voilà léegi nag comme que la nouvelle loolu moom Pape Diop ba mu rejoindre. Mhm. indi na 83 une majorité. Mhm. xel daloon na. bu mhm. ñu am majorité suñu voté. mais le fait nouveau la nouvelle donne Mimi euh, euh, et qu'elle m'excuse Aminata Touré Touré madame la première ministre et l'ancienne première ministre donc est sortie pas de, la coalition pas du parti mais du groupe parlementaire il membre euh, du parti à titre euh, enfin. Ouais, on peut le dire comme ça. Tant mm. qu'elle n'a pas décidé de démissionner, on pas, et pas, pas, son mandat. Mm-hmm. Sauf euh, cas de force, etc. Donc, si elle décide de voter mm-hmm. en solidarité avec l'opposition, donc on annule. La voix de Pape Diop. <laughs> voilà. C'est ça le problème qui se pose. Mm-hmm. Et maintenant, le Premier ministre qui vient de s'installer doit impérativement faire une déclaration de politique générale. Et affronter l'Assemblée nationale, qui pourrait introduire une motion de censure. Et c'est imminent parce qu'on on doit vers, on va aller vers une session budgétaire en octobre. Parce que ah. dans, dans, la Constitution, il y a deux sessions annuelles. Benébi au cours du premier euh, trimestre, mhm. donc le deuxième à partir d'octobre. Donc le président a besoin di vote des lois de finances donc dañu bëgg ñu ñu jox ko euh, lii euh, donc budget. waaw pour mën gouverner année bi. Mhm. donc le premier ministre su ñëwul def sa déclaration de politique générale je ne pense pas que ñoom waroon nañu daan début daan voté budget parce que naan budget pour lan. man mhm. pour politique. il faut que le président faire sa déclaration de politique générale ñu xam lan lay quelle est sa politique économique sociale. il sont ils vont être obligés. donc ils mm. doivent faire cette cette déclaration. cette déclaration de politique générale. su ñu voté motion de censure. Mm. si si madame Aminata c'est le gouvernement de Amadou Ba qui suite. le, gouvernement peut être renversé par vote de motion de censure. c'est mmh. le problème qui se pose. et donc euh, et donc si le président renvoie un autre gouvernement aussi ñu voté motion de censure il sera obligé de collaborer. avec l'opposition avec l'Assemblée mu seen nit ma ma reconnaître ma formé ngeen formé leen gouvernement mais là aussi le président peut croiser les bras ni du ma signé ordonnance décret projet de loi yi ko signé kenn mënu ko booba day day day day day day lii day neutraliser le gouvernement le mm-hmm. gouvernement et l'assemblée bu voté loi jox ko président pour promulguer ko président bañ président am na délai six jours de recours auprès du conseil constitutionnel il a un délai de huit jours ah pour promulguer et ce délai peut réduit à moitié quatre jours en délai d'urgence fekk assemblée nationale wax na te promulguer bu délai bu jeex président sénat assemblée nationale mën na moom promulguer les lois. président de l'assemblée peut promulguer les lois fekk jox na délai président président respecté peut promulguer les lois. il a raison on a parce qu'il y a le président qui avec lui. oui voilà voilà donc. ils sont en équipe <laughs> euh, contraire, mm -hmm. si l'opposition donc, est majoritaire, mm -hmm. dans ce cas, le problème c'est que s'il vote une loi mhm. que le président n'agrée pas, le président peut l'envoyer en seconde lecture. À l'Assemblée À l'Assemblée pour lui revoir. Mhm. Dans ce cas, il faut qu'il fasse une demande motivée. Conscient il faut une demande motivée mhm. qui ne peut être refusée cette fois. su defee demande motivée rek wax lu tax mu renvoyé ils sont obligés de faire une seconde lecture et en cas de seconde lecture l'Assemblée doit Hmm. donc la loi bu amul troisième des majorités donc donc en cas de renvoi en seconde lecture l'assemblée ne peut pas légiférer si le le Benno à cette loi kon le président peut neutraliser le vote des lois. par son hmm. droit de veto. ok donc tu vois. Il y a donc ce contexte qui montre que qui menace qui peut qui menace qui peut montrer que il y a peut avoir un, blocage. Hmm. Dégg naa qui ont dit qu'en cas de blocage institutionnel. Le président peut gouverner par ordonnance Non, non, c'est loolu pas possible. ordonnance deux cas la dafa am ordonnance président du ko jëlal boppam soit day demander autorisation à l'Assemblée ñu ah ñu voter une loi d'habilitation législative. maanaam ñu may ko sañ-sañ. Mhm. mu dugg ci domaine législatif. parce que y deux domaines il le mhm. domaine de la loi et le domaine du règlement le domaine réglementaire le pouvoir exécutif moom réglementaire mooy tout ce qui ne relève pas du domaine de loi et du domaine réglementaire. Mm-hmm. foofu il prend des décrets. Mm-hmm. directement mais dafa domaine constitution bi délimité muy lii matière yi domaine de la loi la sa yoon nekku ci. matière yooyu bu ci bëggee dugg président. Mm-hmm. dafay demander autorisation au pouvoir législatif. ñooñu voter une loi d'habilitation ñu may ko sañ-sañ. oui mais pas majoritaire. <laughs> pour une durée pour une durée déterminée. et sur des matières précises. et bu paree jox euh, projet de ratification boobu. Ah, boobu nag boobu nag bu ñu ko joxee loolu euh, ordonnances yi sont des décrets qu'il prend et qui ont force de loi à l'époque en on appelait ça décret loi donc euh, donc ordonnance yooyu nag autorité du ko jëlal boppam. Hmm. ñu naan il gouverne par ordonnance non le président ne peut pas gouverner par ordonnance sauf un cas. Mm -hmm. mooy en cas de pouvoir exceptionnel prévu par l'article hmm. et loolu mooy su fekkee ni euh, le pays est menacé. Mm -hmm. l'indépendance nationale. Hmm. l'intégrité du territoire. wala les institutions sont, sont interrompues, mm -hmm. les pouvoirs publics, maintenant il n'y a plus de collaboration entre les pouvoirs. Mm-hmm. C'est bloqué, comme li may wax ni boobaa le président bu defee message à la nation mm-hmm. waxan mën na jë euh, yëgal ko président assemblée ak ak conseil constitutionnel day jël day jël ses prérogatives yu ñu ko may ay ko article 52 mai mooy pouvoir exceptionnel mm-hmm. de la police pour rétablir l'ordre le fonctionnement de l'assemblée nationale foofu mën na dissoudre parce que euh, en principe faut foo jëlee pouvoir exceptionnel l'Assemblée nationale réunie de plein droit cest à que sans convocation par décret. mais si si si les pouvoirs publics sont interrompus pour restaurer la continuité de l'État le fonctionnement régulier des pouvoirs publics il sera obligé de parce que finalité. kon le président peut dissoudre l'Assemblée nationale. sans respecter le délai de deux ans qui lui est quand il prend les pouvoirs exceptionnels. quand il prend des pouvoirs exceptionnels. oui pourra dissoudre. ok d'accord et on peut pas légalement. en cas d'exercice des pouvoirs exceptionnels parce que SRU de plein droit pour contrôler. les ordonnances. Mhm. là le président prend des ordonnances. d'accord donc moom mais moom mooy xool ba léegi ne fi mu mais il faudra que mu jéem a def dara. xool ba xam situation exceptionnelle day am menace grave et il la menace soit grave et immédiate. soit réelle aussi ah. soit réelle et manifeste. si que elle comment est ce que le président peut faire pour pacifier en tout cas ou préserver sa famille politique euh, au delà de deux est ce qu' a d' potentialités au cas où il de ne pas se présenter. Ah, question délicate man de. je suis pas dans la tête du président. mais quand même euh, je <laughs> crois que. Mhm. pour éviter une chasse aux sorcières. après lui après son départ. oui cas de départ. cas de départ parce qu'il y a des dossiers peut-être mhm. il y a. des on a soulevé les cas de son frère Aliou Sall. et de son beau-frère aussi de son beau-frère et d'autres. qui sont peut-être. c'est je ne sais pas. Mhm. et qui risquent d'être la proie. des nouveaux au prochain où ça viendrait de l'opposition. nouveau pouvoir qui s'installerait à partir de départ du président Macky il doit protéger ses arrières dans ce cas. Mm-hmm. Ah, peut-être qu'il serait bien, mm-hmm. avant son départ, mm-hmm. qu'il qu qu qu essaie d'instaurer un régime parlementaire. que c'est une demande depuis longtemps, le, le, le, régime parlementaire. Parce que ça permet de décongestionner les pouvoirs. Le pouvoir, euh, le pouvoir exécutif notamment, qui hypertrophie. Il y a tout le pouvoir en les mains du président au déséquilibre des autres pouvoirs, hmm. le législatif judiciaire. Il est presque un, législateur en second, parce que mmh. c'est hmm. lui qui initie l'essentiel des lois, des, souvent le projet de loi. Hmm. L'écrasante majorité des lois émane du président, chef de l'exécutif. Et parfois, à l'époque, c'était voté mécaniquement. On parlait de vote mécanique. parce qu'il la majorité mécanique, mécanique. aussi. Donc c'était va entendre ce que vous venez dire. Euh, parce que si en cas de si l'opposition prend le pouvoir en 2024, s'ils actionnent le pouvoir judiciaire, qui déclenche donc euh, la, la, chasse aux sorcières, mhm. serait dangereux. Mhm. Il serait bien de couper le cordon ombilical entre le judiciaire les... et l'exécutif. Ouais, en quoi faisant, par exemple, bien sûr, euh, il y a le ministère de la Justice qui, coiffe le parquet mhm. et, par le biais du procureur la République. et, le président de la République qui préside le Conseil supérieur de la magistrature. Bon, on me dira que les magistrats sont indépendants. Leur indépendance est garantie par euh, l'inamovibilité et qui, et qui sont soumis seulement à la loi au moment du jugement, mmh. à qui d'autre, à personne d'autre, mais quand même leur avancement est à la discrétion du chef de l'État, qui les nomme hein, <laughs> sur l'avis du Conseil C'est important. Donc, ce serait bien hein? qu'on qu qu prévoit un régime parlementaire pour alléger, pour euh, essayer d'équilibrer les pouvoirs avec un chef d'État politiquement irresponsable mmh. qui serait chargé la présidence du Conseil supérieur de la magistrature. Mm-hmm. avec peut-être un chancelier de la magistrature ou de la justice qui exercerait donc les fonctions du garde mm-hmm. Donc on séparerait la justice de la politique. Et le, parquet serait détaché de l'exécutif. le procureur, tout ça rattaché vers la chancellerie de la magistrature qui est affectée au service du chef de l'État dans le cadre d'un régime parlementaire, où la justice doit être garantit l'intégrité euh, et l'indépendance de la nation. Donc, rattacher les services de défense et aussi de sécurité, l'intérieur, qui est un complément de la, des services de aussi complémentaire de la défense avec la gendarmerie, mmh. pourrait être rattaché aussi au service d'un chef d'État politiquement neutre. Mhm. Les forces armées gagneraient à ne pas être dirigées par un homme de parti, un homme partisan. Oui. L'administration gagnerait à être neutre politiquement. Mhm. ça permettrait moins, politique aussi. permettre, mm. parce que lors des élections, hein, euh, il y a un climat de suspicion qui pèse mm. sur le ministère de l'Intérieur. On pense qu'il est piloté par le chef, de parti au pouvoir. Mm. Et c'est lui qui organise les élections. Donc, on gagnerait à ce que le ministère de l'Intérieur soit détaché de l'exécutif et rattaché donc vers un, pouvoir politiquement politique. responsable, le chef de l'État, dans un cadre d'un régime défense intérieure. Mmh. Maintenant, affaires étrangères et finances, ça, naturellement du domaine de la compétence du président, de, du chef de l'exécutif qui est mm-hmm. chargé de négocier les traités, etc. D'accord. Et, les services de développement. Tom, on, on à la fin de cette émission, euh, parce que ne peut pas tout dire ici, Absolument. tellement c'est important. Et on vous laisse donc le soin véritablement de dire au revoir à nos internautes. Euh, wow. Dire peut-être euh, potentiellement votre dernier mot. oui euh, disons que maa ngi euh, gërëm ñëpp ñu may déglu di baalu àq ñëpp su fekkee am na ñu ñoo xam ne li ma wax dafa leen naqari xëy na njuumte la maa ngi ci jégalu. Mhm. di xam yëgal rek ni man bokkuma ci benn parti. Mhm. je ne suis ni je n'ai carte de parti je ne suis ni du pouvoir. ni de l'opposition je suis donc un citoyen. ah qui qui parle ah qui qui qui a droit de son avis sur la situation politique du pays. Mhm. Et je pense qu'il faudrait que instaurer un arbitrage mhm. avant que euh, l'irrémédiable se produise avant que ñaari langue yi nekk ci réew mi. Mhm. pouvoir ak opposition bi. di xeex réew mi euh, di di di yàqu. ne peuple yi war na jóg arbitré man ci ñooñu laa bokk peuple yi ñu war a jog dox diggante bi su fekkee ni le présent am na droit mandat c'est juridiquement am na droit. ñu prouver ko nan nga bàyyi peuple mooy élire de façon c'est pas parce que tu es candidat et tu as une une candidate que tu vas gagner c'est le peuple qui va juger en âme et conscience s'il veut reconduire le président ou pas. donc c'est le peuple qui est souverain. Mhm. mu demaat candidat de pas dire qu'il va gagner. si l'opposition est sûre. de son fait. Mhm. nan ko bàyyi mu candidat peuple bi arbitré. waaw ah, peuple bi arbitré par le bois de vote. mais taxaw rek ne fi nekk candidat ñu ñu ñu. vraiment c' est pas intéressant. c' est pas bien c' est pas bien. Euh, mhm. euh, mhm. merci beaucoup mbokku internet yi ñoo ngi leen di jaajëfal di leen di leen manifester en tout cas joie bi nga xam ne am nañu ko di wax ak yéen saa su ne di leen andil ay invité yoo xam ne dañuy dimbali. ñuy waxtaanee questions yi nga xam ne dafay concerner Sénégal ñu leen dig daje beneen yoon ak beneen invité fii ci senego.com ñu doon dalal monsieur Babacar Métiour euh, Ndiaye bu nekk juriste euh, ki nga xam ne souvent des questions constitutionnelles da koy intéressé di leen dig daje ba beneen yoon ak beneen invité fii ci senego.com jërë ngeen jëf